l'an 2000 la ngi nii Lamine moo daan Farouz bërki dem moo wax nga dëgg ndaama laa de l'an 2000 bëgg naa la mbër. waaw fii la waree siyaar nañ baax a baax. te yaa ngi grand théâtre de. waaw ñoo ngi siyaar àdduna bi yëpp gars yi ñooñ ñu fi invité woon xam nga comme mais félicitations lañ lay wax. waaw merci beaucoup merci merci. nga doon bëree xale ñu bëri ne xale la ak fi mu jóge woon maanaam nga ñëw indi bëre xañ ko sa bopp daan ko. waaw ah, c'est normal booy ma daan ko moo normal. li ma def ci làmb defu ko xëy na kay damaa damaa gëj a bëre rek combat yi ñoo tegloowu rek moo tax ma bëre moom mais maa ko raw téeméer yoon. ñu ma bëree bëreewul ak ñoom ñi ma daan daanu leen. maa ko ëpp ay combat ëpp ko ay victoire ëpp ko carrière. nga jógee ci fan yi ñuy dégg ñu naan Siteu nga ne am na loo wax ci Siteu loo wax ci Siteu nga ne. non journaliste dafa ma laaj Siteu nii nii mais ko su ma soxlaa ma ma bëre moom mais du ko laaj parce que maa ko raw. yow yaa raw Siteu. maa ko teg. ah xool sama combat yi ak sama victoire yi nga xool. wala loolu nekkatu raw si man kay yow laay laaj yi xam nga toog na du taw ñuy natt si yaa wax. bu fekkee ne làmb laa wax bëri li nga daan ak bi nga daan maa raw si ta fuuf su bëggee mu ñëw ñu bëri nag. góor a soog mi ci el bi nag ne magam nga xaw ma lan am nga. ah wax na dëgg moom moo la ko wax kay waxuma la ko kay dëgg la wax na dëgg. mais bu ñu leen doxee seen combat nga jël ko. non non. bëggoo ko. waaw billaahi. bëggoo bëri da raw góor a soog. waaw téeméer fuuf waaye yow Babacar yow tamit ama neex mais nag ama yaag ama neex nag. ama neex jaadu na.